monsieur Omar Dramé ñu ngi lay nuyu. maa fay soxna dalal la jàmm itam ci suñu waxtaan gi nga xamante ni suba su jot moom la amal ci la rajo Rewmi FM li ñuy waxtaanee mhm. tey mooy euh, pêcheur maanaam nappkatu getnaar yi nga xamante ni fi mu ne dañoo mer ba fu futu ne ni ki talaata mhm. ji ñu weesu rek ñu ngi doon amal ay jaamarloo yu metti ba am fa yàqu-yàqu yu bëree ci moom le euh, dëkk kon di ndar lu bëri yàqu na fa rawatina ay màkkaan yoo xamante ni bokk na ci mhm. OMVS ak Senelec alors mm-hmm. euh, laaj bu njëkk bi mooy yow ndax est-ce que ñoom manière bu ñu procéder noonu euh, yow ànd nga ci ak lan moo ci sa xalaat. Mm-hmm. madame maa ngi lay gërëm donc di lay sant ci interview bi ma accordé. Mm-hmm. donc euh, aussi bi di donc di nuyu donc ñëpp ñuy déglu Rewmi FM. donc di lay wax ne ne vraiment lu xewoon Saint-Louis donc voilà mardi passé. entre euh, voilà euh, suñu parents gendarmerie yi ak euh, force de l'ordre yi ñun en tant que agent donc au niveau di ministère des pêches et de l'économie maritime en même temps intersyndical des travailleurs des pêches et de l'aquaculture dañ koy ñaawlu parce que mhm. vraiment donc violence du régler dara maanaam lépp loo gis ci àdduna dañ koy dañ koy waxtaane pour trouver si ci ay solution mais suñu lancer aussi violence rek maanaam day day indi ay conséquences yoo xam ne xëy na donc après dina dina dina métti kenn du ko mën a maîtriser vraiment ñu ngi leen di woo ñu tal ñu tal vraiment donc euh, ñu jéem a ut euh, solution si si si problème yi nga xam ne posé nañ ko mais vraiment euh, lancer aussi violence da di def loo xam ne sax bokk si vraiment di saccager ay institutions donc euh, loolu moom wax dëgg fa la ñaawlu nañ koo te je pense que sénégalais yi ànduñ ci loolu nit moom mun nga manifester wu xam nga vraiment yëglu lu la naqari mais donc euh, lépp lu ñu def nii donc dañ koy dañ koy dañ koy ñaawlu dañ koy ñaawlu donc vraiment euh, ñu ngi leen di ñaan daal ñu dal quoi daal mhm. waaye it daanaka li ñuy revendiquer mën nañ ni c'est légitime ndax mu ngi jëm ci wàllum licence de pêche yi daanaka moo indi coow li li tukkee ci licence de pêche yooyu nga xamante ni ñoom nee ñu voilà dañ leen ko war a jox et tout wala ñu joxoon leen ko ba ci yàgg ñu ne leen liggéey bi dañ koy dàkkal est-ce que mën mën nga ñu expliquer clairement lan moo am ci wàllu woowa ñeel licence de pêche yi. jërëjëf madame ci cette question bi je pense que donc euh, par rapport ak euh, voilà licence de pêche yi nga xam ne moo indi problème donc euh, xam nga euh, autorité sénégalaise yi ak mauritanien yi dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo seq coopération bilatérale yoo xam ne dañuy signé ay convention maanaam coopération boobu wàllu napp ji bokk na euh, ministre Aliou Ndoye lu ñu njëkk a def mooy déplacé wu dem Mauritanie dem gis naataangoom ñu waxtaan par rapport ak ont licence de pêche je pense que si la réussir am donc quatre cent licences de pêche yu nga xam ne dañ koy accordé mool mool mool mool yi nekk Sénégal donc loolu su demee ba am donc euh, ñu war koo jox mool yi pour que ñu mun a def seen i activité maintenant nag dafa am lu si laxasu dafa am benn problème boo xam ne loolu moo si laxasu mooy lan mooy xam nga euh, mool yi Euh, am nañu si bëri yoo xam ne amuñu woon donc euh, ay këyit yu leen mun a ñu dugg si waaxu euh, Mauritaniens yi pour pour pour pour napp foofu nag bañ duggee daal du kon Mauritaniens yi dañ leen dañ leen jàpp dañ leen jàpp saisir seen i matériel xam nga amende leen naa amende yooyu nag soo xoolee dem na ba ay centaine de yoo xam ne donc état du Sénégal bu ñu woon discuter ak état mauritanien pour ñu xool nan la ñuy dindee amende yooyu donc parce que aussi loolu seen arrangement lay doon seen njëriñ lay doon parce que imaginez donc amende yooyu suñ ko dindiwul da leen di topp te bu boobaa seen liggéey ñu ko mën a def correctement moo tax donc discussion yooyu la euh, ñaari autorités yi nekkoon di def donc euh, maintenant ñu si doon avancé bu baax a baax pour trouver ci solution ñoom nag diggante bi euh, dañoo dañoo dañoo dañoo wax ne ne ñoom dañoo toog depuis janvier ba léegi liggéey ñu accord bi leen koy leen vraiment di leen di leen koy masawu parce que aussi activité bu am solo la ñu am ay njaboot vraiment donc euh, war euh, liggéey bu dundal seen njaboot naa nag kaaraange aussi si loolu dafa am solo ñu am kaaraange seen wàllum liggéey xam nga ñu am ay licence yoo xam ne la leen di permettre ñu ñu nopp te benn jafe-jafe ci am je pense que loolu moo gën te loolu ay solution yoo xam ne la ñu ngi si woon te lu si desoon mu mu sotti vraiment bëriwul mais ñoom nag vraiment dañoo jékki-jékki euh, manifesté wu def loo xam ne ñëpp a koy ñaalu te ñoom aussi vraiment ñu ngi lay wax ñu calmé wu parce que vraiment dara mënuñ ko régler ci violence. Mhm. autorité yi ñu ngi solution si seen problème je pense que solution dina am incha Mhm. d'accord waaye moo li itam ñoom nee nañ garde côte mauritanien yi la jël nañu leen wit euh, lu nu napp ñu jël ko dañ leen di euh, daal di sonal torop ci li nga xamante ni mooy waaxi kon te état bu Sénégal da leen seetaan. Euh, maanaam état du Sénégal seetaanul leen parce que suñu suñu suñu ay ay ay ay ay ay ay lañu xam nga suñu ay partenaire lañu donc mënuñ leen seetaan. vraiment donc ñuy am jafe-jafe te duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko duñ apporter solution si jafe-jafe xam nga dëkk bu nekk dafa am ay loi dëkk bu nekk dafa am nu muy doxe Sénégal fii soo xoolee donc euh, à tout moment da ngay dégg ne euh, voilà si jàpp nañu ay gaal yoo xam ne dañoo ñëw xam nga ci napp si anam bu bu bu dëppoowul ak ak ci foofu réew mi. donc aussi Mauritanie aussi noonu la demee. soo jógee ci waaxu euh, sénégalais dem si waaxu mauritanien yi nga ne da nga fay napp te amoo benn këyit bu nga am bu lay mun a permettre nga napp ah suñ la tegee daan aussi donc yow yaa ko def vraiment loolu aussi ñun dañuy ñaan suñu mbokk pêcheurs yi donc vraiment balaa ñuy dem ci ci ci waax yi ñu xaar ba accord yi ñu yu ñu yu ñu yu ñu trouvé ak dëkk boobu accord yi euh, nañ dal jéem a jéem autorité yi solution moom day am solution moom day am donc euh, incha allah fan yi ñëw rek vraiment donc euh, lii moom coow li moom suñu ginnaaw lay lay doon incha mhm. waa monsieur Dramé coowal euh, licence yi liñ ciy dégg bëri na li muy jur ay wàllum violence bëri na itam njiit ñoom ñi nga xamante ne ñoo ko sekk lan lañ war a mën a def pour de bon pour que wàllu licence yooyee kon coow li fay. Euh, donc wax nga dëgg wax nga dëgg coow yi coow yi bëri nañ ci coow yi bëri nañ ci mais je pense que euh, solution buñ ci buñ ci war a apporter bon man dama ci wax sama sama sama sama sama solution personnelle boo xam ne donc euh, aajo aajowul dara ak voilà donc autorité yi nekk di def man sama solution personnelle mooy. ñu jéem a xool vraiment donc euh, commission buy attribuer licence de pêche bi ñu xoolaat ko parce que soo xoolee licence de pêche bi ñu ko accordé noonu xam nga suñu suñu defee donc euh, benn accord ak euh, yenn dëkk yi maanaam day am commission boo xam ne day xool ñu ko yellool ak ñu ko yellool ñu jéem a xool nan lañ koy nan lañ koy saafara maintenant nag commission boobu dañ ko war a xoolaat ñuy composé commission boobu ñu jël ko changé jéem a xool donc euh, vraiment euh, représentation yi mool yi suñu waree représenté syndicat yi suñu si waree représenté ñu représenté autorité yi ak euh, agent ministère yi maanaam ñëpp nekk si daal pour que vraiment coow bañ a am je pense que loolu moom suñ ko defee xoolaat commission buy attribuer licence yi rek je pense que vraiment jafe-jafe dootul amati parce que en général moom dañuy wax ne lépp li ngay def sama ginnaaw xam nga donc euh, te teewu ma ko donc euh, da koy def euh, contre je pense que lépp lu ñuy def acteurs yëpp dañ see war gis seen bopp ñëpp bokk si pour que vraiment solution problème bu mu amati bon mu mhm. amati daal talaata ak est-ce que kilifa yi jéem nañoo jokkoo ñi nga xamante ni ñoo doon ñaxtu pour jéem a waxtaan ak ñoom waaw waaw waaw donc loolu mënut a ñàkk soo gisee donc démb sax donc ministre des pêches et de l'économie def na benn benn interview n'est-ce pas pour wax leen ne donc vraiment ñoom dañoo yàkkam ci rek parce que ñoom aussi daa amoon ay ndawal yu yebaloon yu doon waxtaan ak autorités yi au niveau du ministère maintenant ñoom suñ demee nag ba xam ne ne ñooñu ñu yebaloon doyatuñ leen mais nag ñoom dañoo war changer yeneen pour ñu pour pour pour ñooñu ñoo waxal leen mais suñ buggee yebal ay ndaw ndaw yooyu vraiment nekk di discuter ak euh, autorités yi violence loolu mënut a loolu vraiment autorité yi ñu ngi waxtaan ak ñoom je pense que soo xoolee calme bi sax revenir na te loolu la ñuy ñaan te ñoom comprendre nañu vraiment de que violence du régler dara lu ñu war a def mooy toog pour euh, trouver solution te toog boobu moom incha allah le plus rapidement possible ministre bi xam naa ne dina def benn communication bu yaatu pour euh, pour pour pour pour wax donc exactement. Euh, licence yi donc euh, voilà euh, fu mu toll ak nan lañ koy nan kañ lañ kañ lañ lañ koy jox te loolu xam naa ne du yàgg daal ñu ngi leen ñaan vraiment ñu dal xam nga parce que si lépp si dal la lépp di mun a réglé wu donc dal su amee rek donc solution day daal di am. Mhm. boobaag tey mool dellu na géej wala. non boobaag tey mool mënul dellu géej parce que problème bi ay licence yooyu ñoom ñooy permettre. donc ñu dem napp ji donc licence yooyu nag suñ ko jotagul lu dem géej loolu nag lépp aussi si seen wàllu kaaraange lay dellu parce que aussi donc ñoom lu ñuy ñaxtu mooy ñu dem Mauritanie di leen di sonal c'est parce que am amuñu licence pour mun a dem napp bi léegi nag suñ demee ba def problème boobu vraiment dina leen permettre donc ñu dem en toute sécurité dem vraiment donc euh, napp ji te du ñu am benn jafe-jafe mais je pense que loolu moom dootul yàggati incha allah fii ak ay fan donc euh, solution moom nañ ko trouver ci ci problème bi pour que loolu bu ma amati. demuñu géej mais est-ce que seen toogaay boobu du am jeexital ci wàllum koom ci dëkk bi. Euh, dëgg la dëgg la parce que soo xoolee secteur de la pêche dafa yaatu parce que dafa am secteur arti pêche artisanale am pêche industrielle. pêche artisanale nag donc moo gën a am part bu gën a am solo donc si si secteur de la pêche seen toog boobu donc mun na am jeex jee jee jeexital donc si économie réew mi maintenant nag problème bi mooy euh, ñu jéem a def en sorte pour que pro pour que ñu trouver solution ñu trouver solution pour que vraiment lii bu mu amati parce que je pense que autorités yi ñoom dégg nañ bu baax message bi te ñu ngi si ñu ngi si pour que vraiment ñu trouver solution yi soo xoolee pêche dafa am solo si économie réew mi mhm. donc euh, soo xoolee à partir de donc de de de deux mille quinze soo xoolee moom mooy premier pourvoyeur d'économie ci si wàllum réew mi donc à partir de deux mille quinze lañ la xool bi donc euh, jël mais de deux mille quinze pêche lu mu doon dugal si réew mi donc amul benn secteur bu koy dugal donc maanaam secteur bu am solo la mais ñu leen di ñaan ñu dal ragaloo leen ay jàppante amaat. non non ragaluñu ay jàppante da amaat parce que euh, vraiment donc euh, ay autorité ak euh, vraiment ay nit ñoo xam ne donc dañoo am kàddu si réew mi ñuy waxtaan ak ñoom soo xoolee sax jet na donc délégué de quartier yi donc ak wala autorité yu nekk foofu vraiment daje da daje naa ñoom waxtaan nañu. xam nga pour ñu jéem a daal ñoom sax ñaawlu nañu vraiment yàqu-yàqute yu am yoo xam ne ñoom nee nañ suñ ko xamee woon noonu vraiment dañ leen ko dañ leen di empêché parce que seen i doom lañu xam nga comme lu ñu wax euh, lu la bett rek da lay mën maintenant ñun moom xam nañ ne donc euh, représailles dootul amati ñoom comprendre nañu solution bi mooy waxtaan te waxtaan mooy mooy dindi lépp loo gis ci àdduna te je pense que vraiment euh, loolu moom si loolu lañ nekk te euh, incha solution dina ci am. Omar Dramé ñoo ngi lay gërëm ci waxtaan wi. maa lay gërëm maanaam di lay sant bu baax ci question yi. jaajëf euh, fàttali ni yaa ngay liggéeyee ca ministère euh, ga ñu dénk wàllum napp gi ak lépp lu tukkee ci li nga xamante ni mooy waax yi naka noonu bokk nga ci intersyndical liggéeykat yi nekk ci napp gi ak wàllum aquaculture Rewmi FM di la jaajëfal bu baax ñu yendoog jàmm. merci beaucoup madame c' est vraiment gentil jërëjëf